mbokki taalibe yi ci seen programme bi ñuy wooye al académia de seen site al azhar touba point com di leen ko defal ñu ngi dikkaat ak yéen ci seen jataay biñ baaxoo am ak yéen te di ci leeral lenn ci téere Sëriñ Touba yi nga xam ne da ko taalif ngir jàngale ci lislaam ñu tàmbali woon ak yéen seen téere boobu ñuy wax tazawudu shubaan kon ñu am yéene def ak jataayu ñaareel bi ñu ngi yamoon a yéen fi muqaddama bi jeexe muy njiit laay li Sëriñ Tuubaa jiital ci téere bi di ci tënk li muy waxtaane ci téere bi ñu war a dugg ak yéen ci xaaj bu jëkk bi nga xam ne mooy xaaj bu jëkk ci téere bi ndax téere bi ni leen ko waxee woon ñetti xaaj la benn xaaj bi mi ngi leeral al iman bi ci des di leeral al islaam bi ci des di leeral al ihsaan kon xaaj bu njëkk bi sëriñ bi mi ngi ko tàmbalee ci waxam ji mu wax ne alqismu al awalu min aqsaami diinil awali baabul aqaaid al jaalibu lil fawaaid nee na xaaj bi njëkk ci xaaj dina yaa yàlla mi nga xam ne moo njëkk mooy bunt pas-pas bi ñuy leerale pas-pas yi buntu muy buntu bi nga xam ne dana xëcc jëmale ci ay njariñ njariñi àdduna ak mooy ci firi mi boo ko bëggee xam dañuy wax ne alqismu al awal lii mooy xaaj bi njëkk bi min aqsaam diinil awal ci xaaji dina yàlla mi aji jëkk baabul aqaaid mooy buntu pas-pas yi aljaalibu bi aji bijj di fawaid jëme ci njariñ ya dunduk àdduna ak alaxira mën na cee nit ki mën a jariñu dëgg dëgg dëgg day am fas-fas bu wér a wér moo tax mu tudde ko bunt bi xëcc ci jëme ci njariñ ya ba tey tam am na ay njariñ yooyu mën na cee jublu maanaam fawaid aqliya maanaam ay ay ay ay ay yooy xam maalumaat yooy xam yoo xam ne ci wàllu pas-pas euh, dana la dolli pas-pas moom ci bunt bi nga koy jële mu wax ne imaanukum seenu gëm an tuuminu mooy ngeen gëm billaahi ci yàlla wa bil malaaikati jundillaahi ak ci malaayika yi yeddi soldaar yàlla wa bi jamii kutbi yi ak ci mbooleem téeréem ya al munazala ya ñu wàcce wa yowmihil axiiri ak bisam bu mujj ba yowmi zalzala bisub rëg-rëgil ba wa bi jamii rusulihi ak ci mbooleem yonentam yi wa fil qadar ak ci dogal bi min xayrihi ci aw yiwam wa charrihi ak ayam xaysu sadara fu fi génne dafa wax ne ni ñuy gëmee yàlla day laaj ñu gëm juróom-benn ponk yoo xam ne ñoom la ñu wooye arkaanul imaan ponk yooyu yëpp nag boo leen boolee gëm ci ngay nekkee mu'min xaqan boo leen gëmee nag leen war a gëmee ni ko alquran ak sunna leeralee te mag ñi baax ñi gën koo leeral bu baax a baax kon mooy nga gëm yàlla na ko war a gëmee dana ko leeral gëm malaayika yi nga xam ne soldaar yàlla lañ yàlla da leen di jëfandikoo ci mbindeef yi leen ci def loo ay wasaayif ay liggéey moo tax mu tudde leen jundillaahi gëm leen nag leen war a gëmee gëm itam téere yi nga xam ne ñoom la yàlla wàcce ci yonent yi yëpp tàmbalee ko ci aadam ba ci sayyidina muhammad benn bu ne téere yëpp nga gëm leen ak leen war a gëme dana ko leeral gëm yowmal xiyaam muy bés mujj bi di bi nga xam ne ci la suñu borom di yëngal suuf si mu génne mbooleem mbindeef yi nga xam ne dañ leen cee suuloon nga ko it ni ko war a gëmee dana ko leeral gëm tam yonent yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tàmbalee ko ci adama ba ci ba ci yonent yàlla muhammad nga gëm leen ni nga leen war a gëme ak dogalum yàlla tam nga gëm ko ni ni nga ko war a gëme moo xam dogal bu baax la wala dogalub safaan la fu mu amee rek nga gëm ko na ko war a gëme danañ la leeral buñ ci àggee lan mooy dogalub yàlla ak niñ koy gëme kon loolu mooy ponki ngëm arkaanul imaan ñoom la ñuy wooye al imaan boo leen bëggee xam ci tënk danga naan arkaanul imaan ponki ngëm ñooy al imaan hiya al imaan billahi ñooy gëm yàlla wa malaayikati wa kutubi ak ay téeréem wa rusulihi ak ay yonantam wal yawmil aaxir ak bis bi wa fil qadari xayrihi wa sharrihi ak gëm dogal bi aw aw ak safaanam kon ñooñu moom la ñuy woowee arkaanul imaan alxuraan nag ak eh, sunna si bi saxal nañ fonk yooyu boo ñëwee ci alxuraan suñ borom mi ngi wax ci suratul baqara naan ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى ba mu jeex nee ak mbaax du jëmale sa sa xar kanam ci xibla yi ñuy jëmale suñuy xar kanam bu ñuy jaamu yàlla waaye ak mbaax mooy nga am pas-pas bu wér ci yàlla am pas-pas bu wér ci ay yonentam ak ay malaayikaam ba ponk nga muy jeex am na faneen fu mu koy wax ci saar bi tam naan amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ba mu jeex yonent yàlla muhammad gëm na li yàlla wàcc ci moom moo ñi ko gëm ñëpp gëm nañ ponk ngëm yëpp tudd ponk gëm yi bañ jeex kon ponk ngëm yi mooy yooyu hadiisu jibril tam bi ji ñëwee yor melokaanu ab nit ku dëkk ci àll ba ab arab yi hadiis boobu itam ba nga xam ne dafa meloon ne kuy laaj yonent fekk dafa jubloo jàngal saxaaba yi laañ na ba mu laajee yonante bi al imaan da ko da koo wax ponk yooyu la ko liman moom yonante bi kon mel na ne li sëñ bi wax fii am na cëslaay am na sukkandikukaay ci sunna si yonante bi ak ci alquranul karim kon ku ci bëgg ay leeral wala ay gën a yaatal tam boo delloo ci delluwaay yooyu rek danga ci gis lu gën a leer ñu ñëw ci leeral lan mooy gëm yàlla mu wax ne fas lii ab ab dog la maanaam ab dog moo xam ne day leeral ni ñuy gëme yàlla day tàqale tàqale gu leer ni ñuy gëmee yàlla wax ne imaanukum seenu gëm bi rabbikum ci seen borom tasdiqu mooy dëggal bi annahu ne moom wujuduhu ak amam xaqiqun lu dëggu la ni ñuy gëmee yàlla nee na mooy ñu dëggal ci suñ xol wóolu ci suñ xol bu wér a wér ne ak amam lu sax la lu wér la ab réalité la bu sax a sax xaqiq mooy xaqiqa rek la bëgg a wax mooy lu am la lu sax la doo xam ne lu lu ñu dul la ndax tegtal yi koy wone am na bu wér wér te luñ yëg la itam su ma topp xadimun aji jiitu la joo xam ne laa bidaaya te déet ab tàmbul la di ko ñeel wadu baqaay te boroomu des la koo xam ne laa neexee déet ak jeex la di ko ñeel gëm gi gëm ne aji jiitu la jubluwuñ ci rek moo fi jiitu ñëpp waaye dafay masa nekk te moo fi njëkk ñépp maanaam moom day am waaye la cay dolli ko mooy am tàmbaliwul fenn kon alxidam mooy jiitu ci ci yàlla jubluwuñ ci rek njëkk fi waaye mooy njëkk fi waaye ñàkk a tàmbalee fenn itam boroom ak des ay jubluwuñ ci mu mujj fi ñëpp rek ba noppi jóge fi waaye mooy mu mujj fi ñëpp moo fi mujj ñëpp ba noppi itam du fi jóge ba faaw mooy ku fi du jóge rek baqaa fi buñ ko waxee mooy ñàkk fi jóge rek ba faaw loolu lañ ci jublu kon gëm yàlla ne ku am la waaye ba mu amee itam wuute naag la ne lu man doon du am ndax loo man di gis mu am itam am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem waaye yàlla moom amul fu mu tàmbalee amul fu mu mu xaalifun aji wuute la li xalqi ñeen mbindeefam yi wa qaayimun te aji taxaw la bi si ci boppam wa waaxidun te kenn la laa naaimun ndir muy aji nelaw bokk na ci li nga xam ne dafa munta ñàkk nga gëm ko ci yàlla ngir mën a am pas-pas bu wér nga gëm ne ku wuute la ak mbindeefam yi ci lépp wuute la ak mbindeefam ci lépp lépp loo xam ne rek lu dëgg lu am lu melokaani mbindeefam la moom loolu dàqu na ci moom ci dëgg nam ame ci mbindeef yi dëgg dëgg noona ame wut noonu ci yàlla mooy lay sa laysa kamislihi shay'un ku taxaw taxawle ci boppam maanaam ku doyloo boppam la ci lépp soxlawut lenn wut kenn soxlawut fenn lépp lu mbindeef di aajowoo rek moom suñu borom aajowoo ko te ku ku wét la dem ku wét la wét li mu wét ko leeral muy mu jeexale bayt laa naa imu du koy nelaw maanaam ku taxaw taxawle ci boppam koo xam ne aajowut nelaw ajo wut nelaw ndax nelaw li koy waral mooy lu mënta ñàkk ci ajo ajo moo koy waral te ajo aajo mu amul ci suñ borom walam yakun te nekkut saanil am ñaari lahu di ko ñeel fi ci jëmm ji fi ak ci ay jëfam wa sifaati ak ci melo yi bokk na ci ni ngay gëmee yàlla gëm gu wér nga gëm ni moom yàlla ku wéet la koo xam ne amut ku ko ñaareel ci jëmmam ji dëgg-dëgg xaqiqatu zaatillaahi mooy jëmmi yàlla lam doon dëgg-dëgg dëgg ca yàlla rek la am waaye amul keneen ku ko am ni ko yàlla amee wa fii fi'aalihi ak ci ay jëfam aji amul am ñaare ci ay jëfam tam mooy dëgg-dëgg li yàlla yàlla li muy def dëggantaani jëf yooye kenn mënu koo def na ko yàlla di defe ñu jox la ci misaal rek bind asamaan wala bind suuf wala bind doomu aadama wala bind lan lu mën doon ñoo gis ku ko def te duñ ko gis kon aji wéet la ci ay jëfam wa fi sifaat yi ak ci melo yi mais aji wéet la ci melo yi melo yi lu mel ne kàttan gi mu am nga xam ne lu mu bëgg mën na koo def xam-xam bu yaatu bi mu am te matale ak yëpp melo yëpp ba mat nga xam ne eh, ay sifaat ay melo yu sax ci jëmmum ji yooyu melo dëgg-dëgg la muy tegtale ak dëgg-dëgg ay maanaam yàlla rek moo ko jagoo ba tey bokk na ci ni ñuy gëm yàlla nga dëggal wa annahu maanaam wa an wa tasdiqu bi annahu la bëgg a wax wa annahu ak ne moom dëggal ne moom yàlla tajibu dana war qudratun kàttan kasaa ni ki ni iraadatu nammeel ilmun xam lahu ci moom lahu ñeel ko mu wattu leen mu wattu leen alma axasa jàppuwaay ba maanaam maanaam yi ñuy jàppe ci ci ci wax ji buñ baatu war nag buñ ko waxee fii jubluwuñ ci niñ koy déggee rek nga xam ne mooy lu war ci nit ki mu lu war buñ ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee da sa jaan waaj waaye boo ko deful dara war la ci jubluwuñ ci fii waaye mooy lu sax loo xam ne lu sax la ci lu sax la ñeel yàlla lu loo xam ne maanaam euh, uluhiyatum mooy nekk gi mu nekk buur ak rububiyaam nekk mu nekk boroom lépp day day ngir ngir sax sax giñ sax ci moom dafa dafa laaj melo yi sax ci moom kon euh, war war war buñ ne melo yi war na ñeel yàlla ñu ngi ci jublu rek yu sax lañ yu taqoog yàlla lañ kon kàttan goo xam ne amul benn yamukaay lu mu bëgg rek am na doole def ko ak nammeel goo xam ne lu muy def da koy jëf da koy def ci coobareem ci tëdd ci diisoo kenn yooyu sax la ñeen yàlla xam-xam boo xam ne itam lu jëkk lu mu ak li teew ak lépp loo xam ne lu ñuy xam la rek lu ci mbindeef yi loolu xam-xam boobu bu matale la suñ borom am na ko ci anam gu matale gu yaatu yaatu goo xam ne amul yemukaay su ma topp xayaatun dund su ma topp samun dégg basarun gis su ma topp kalaamun wax yooyu itam wajabat lahu maanaam dégg dund goo xam ne dund gu gu yàlla ci jëmmam ji la ak dégg goo xam ne déggu yàlla ci jëmmam ji la ak gis gu yàlla ci jëmmam ji ak wax joo xam ne day dëppoog euh, màggaayam nga wax yooyu yëpp bu ci ne war nañ ci yu sax lañ maanaam ñeel yàlla waxi suñ borom nag moom du la xalaat wala nu muy amee di ko jéem a niruleeg dara waaye dañuy gëm ne daal lu suñ lu am la ndax alxuraan saxal na ko amaa naka lay am na nag kenn amul ndigal ci de jéem ci xalaat ndax suñ boroom du lu kenn am sañ-sañu jéem jéem a xalaat ci jëmmam ci danga am sañ-sañu rek xalaat ci ay mbindeefam ba mën cee tegtaloo ba xam màggaayam ba mën koo gëm ngëm gu mat waaye kenn amul sañ-sañ xalaat ci jëmmam ndax boo ci xalaatee ak réer ak ngërëmte rek nga ciy jëlee moo tax mu wax ni kallat lott na fikkarun ay xalaat anhu wulis ko yàlla amul àggul dooleem àggul ci mën a xalaat ci yàlla suñ borom mayut doole xalaat ju àgg ci mën a xalaat ci jëmmam ji ba mën cee jëlee lu koy jariñ ku ci xalaat luy lor rek nga cee jëlee wa kawnu akum nekkam àttan wal murida ak di aji namu ja wal di aji xam ja alxaya di aji dund ja walan yabida te du alko wa kawnu akum nekkam alsamia di aji dégg ja wal basira ak di aji gis ja wal mutakalim ak di aji wax ja rusiqtum yàlla na war sa wërsëgalees leen nuuraan ak leer bokk na ci melo yàlla yi nekk kim nekk di aji àttan nga xam ne mu ngi juddoo ci nekk mu nekk am gim am kàttan ba mu amee kàttan rek da da da cee ware maanaam mu nekk aji àttan doo saxal ne yàlla am na kàttan ba noppi weddi na yàlla mën na dara boo saxalee kàttan gi rek da cee ware nga saxal ne aji àttan la lépp aji mën na lépp niki noonu almuridan maanaam moom lay yor ba nga saxalee iraada mooy nammeel coobare rek dangay ngay saxal ne kon yàlla lu muy def da koy soob ku soob la li muy def lépp ba nga saxalee xam-xam tam ci yàlla dangay ngay saxal ne yàlla xam na lépp xam gu mat sëkk ba nga saxalee ak dund ñeel yàlla day dafa day laaj nga saxal ne aji dund la ba nga saxalee ak dégg ñeel ko day laaj nga saxal ne aji dégg la lépp lu mën di doon ak lum sew sew ak lum nëbbu nëbbu ba nga saxalee ak gis tam laaj nga saxal ne aji gis la lépp lu mën di doon nga saxalee ak waxtam day laaj kon nga saxal ne kuy wax la te alquran itam ci ay waxam la bokk mbooleem téere yi nga xam ne yàlla wàcce na ko ci yonent itam ci ay waxam la bokk waxam moom yàlla nag lu sax la ci jëmmam lu melo wu ñuy jox ay meloom maanaam ni jëmoom ji jiitoo noonu la ay waxam jiitoo ni jëmmam ji selle noonu la ay waxam le waaye alquran ji nag ak téere yi yàlla wàcce ay araf la yoo xam ne day tegtale maanaam waxi yàlla rek waaye du du moom ci jëmmi bopp maanaam arafi arafi alxuraan day tegtale maanaam wax yàlla day nag tegtale maanaam wax yàlla loolu nag nekk na loo xam ne sax ay borom xam-xam wax na ci wax yu bare bare yoo xam ne xam naa xuus ci mën naa andi ak guddal waaye daal alxuraan daal wax la war ngaa gëm ni wax la cib tàmbali boo demee xëy na ba ca mawaayabul xudus mën naa ñu gën caa xuusaat kon loolu boo ko xoolee ñaar fukki melo la yoo xam ne moom la ñuy wooye as sifaatul isruna alwaajiba lillah mooy ñaar fukki melo yi nga xam ne ñoo sax ci yàlla taqoog moom boo ko bëggee waññi bala maa ñëw ci wàññi gi sax ñaar fukki melo yi dama lay bàyyiloo xel ne dañuy làmboo mbooleem li ñuy wooyee sifaatul uluhiya mooy melo yi nga xam ne ak mbuure mbuureeg suñ borom laaj na ko ak sifaatu rububiya muy melo yi nga xam ne bo boroomeeg suñu boroom nekk mu nekk ak borom ab boroom laaj boroom bi bi borom lépp laaj na ko boo demee ci Mawaahibul Quddus leeral na ko ci nga xam ne melo yi bu ci ne dafa am yoo xam ne al uluhiyya mooy nekk suñ borom nekk buur bi moom lépp ñu war koo jaamu day laaj mu mel melo yooya ak melo yi xam ne suñ borom nekk borom lépp kii tëral mbir yëpp di doxal mbir yëpp day laaj mu mel melo yooyu ñaar fukki melo yooyu bu ci ne am nga ci kon ñaar fukki melo yooyu mooy melo yi nga xam ne yu sax la ñeen yàlla bi lépp lu suñ borom def nag day juddoo ci melokaan yi bind gi mu bind mbindee fii tëral gi mi tëral seen mbir ak wërsëgal gi mu leen di wërsëgal ak mboolem lu suñu borom def ci mbindeefam yi rek mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi juddoo ci ñaar fukki melo yi ñoom ñëpp kon asmaullahil husna mooy melo turi suñ borom yi ak mboolem melo mi yëpp ñu ngi ci biir dugg nañ ci biir melo yooyu kon loolu tam ab aw ay wax la ju gàtt joo xam ne ci leeral mën naa gudd lool bu fi dul barabam tam buñ demee ba ci beneen téere bu mel ne Mawaahibul Quddus danañ ko gën a leeral ñaar fukki melo yi kon ma limal la ko mooy al wujudu mooy amuk suñ boroom al qidamu mooy jiitu gi al baqaawu mooy des gi al muxaalaf lil xawaadis wuuteeg mbindeef yi al qiyaam bi nas maanaam al qinaa bi nas mooy taxaw ci boppam doyloo boppam wéet ci jëmam ak ci jëfam ak ci meloom ak kàttan mooy al qudra al iraada mooy nammeel al ilm mooy xam-xam al xayaat mooy dund al sàmm mooy dégg al basar mooy gis al kalaam mooy wax ak nekk gi mu nekk kawnuhu di aji attan muridan di aji namm aliman di aji xam sami xayan di aji dund samian di aji dégg basiran di aji gis mutakaliman di aji wax kon loolu mooy ñaar fukki melo yi kon foofu mooy fi ñuy taxawale suñ jataay bu ñaareel bi nga xam ne ci la ñuy leerale téere Sëriñ Tuubaa bi ñuy wooye Zuhdu Subaan di sàkku ci yéen nag ngeen abonné ci site bi di al azhar touba point com ni ngeen def abonné ci nag yomb na mooy fii ma teg sama loxo rek fi ngeen di cliquer bu ngeen ko defee bu ko defee rek bu ngeen ko bindee da ngeen daal di mën a abonné automatiquement ci ci ci émission bi kon ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di sàkku ci yéen ngeen topp programme bi bu baax a baax te jàpp ne da ngeen ci mën a jariñu ci lu aj seen wàllu diine bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh